bokk yi ñuy seetaan ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci seen site 28 pro TV. mbokk yi xam ngeen ne marché central bu Mbacké 1963 la Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké tegoon xeer yi ànd ak Serigne Moustapha Ba Serigne Bassirou Mbacké ibnu Cheikhul Khadim ñoom ñaar ñu ñëw fii ci marché bi tegal xeer bi nga xam ne nii moom moo war a tey ñu daal koy dippee marché central Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké boobaak léegi nag marché bi ku nekk gisoon na melokaan wi xataay bi taqaay bi ak li nga xam ne bëri woon na ci ay yàqu-yàqu ki nga xam ne nag moom mooy le premier magistrat de la ville gannaaw ñeent fukki at marché bi amul loo xam ne lu lu bees la ci amul loo xam ne nii maanaam defaraat nañ ko ci moom nag mu ñëw mu mooy monsieur Abdou Mbacke Ndaw ànd ak projet bi nga xam ne moom mooy PACASEN ñu fas yéene réflexionné waat li nga xam ne moom mooy marché central bu Mbacke ci li nga xam ne nii moom mooy euh, bërëb yu bëri ci biir marché bi lu demee ne ki maal bi maanaam euh, toile bi li nga xam ne moom mooy tamit euh, jëm ci maanaam couloir yi li nga xam ne moom moo jëm ci place yi li nga xam ne moom moo jëm ci tamit suuf si mu jëm ci wàllu pavage nga xam ne marché bi loolu yëpp nag dafa nekkoon bërëb boo xam ne ni bërëb bu mucc bërëb bu yéeme la woon léegi nag ñu ànd ak moom mu digga ci ligal euh, lu toll ci ay koppar loo xam ne ni buñ ko xaymaa dana tollu ci lu juróom benn fukki million ci eh, sunu xaalis loolu yëpp nag ñu ci ànd ak eh, askan bi fas yéeneen ko leen eh, dëgtal ci kanam tuuti xam ngeen ne nag ci loolu nag gisoo bi ki nga xam ne moom mooy monsieur le maire Abdou Mbacke Ndaw def cee daal di woo nag kilifa diina yëpp bu ñu waxee kilifa diina yi dañ ci jiital ñi nga xam ne ñoom ñooy waa kër Serigne Fallou te am na nu jot ne Serigne Abo Mbacke Baraka dina fi teew mook euh, ay rakkam walla bokk ñenn ci njabootu Serigne Fallou yi ñu ñëw ibbiwaat li nga xam ne moom mooy liggéey bi gannaaw juróomi weer yoo xam ne toog nañ ko di ko yeesalaat waaye nag loolu itam mu ngi ci ki nga xam ne moom mooy euh, euh, kilifa dëkk bi muy le préfet du département ci bu mu wootee ànd ceeg maanaam chef de service yu bëri waaye tamit ànd ceeg nga xam ne ñoom ñooy les conseils municipaux yi nga xam ne nii ñoom ñoo àndoon ak ñoom ci liggéey bi ñu fas yéene leen a euh, présenté ci kanam tuuti ñoom ñëpp buñ ci xaaree ci ay délégation wax nañu sànq ne ki nga xam ne moom mooy sëñ Moustapha Mbar teewoon na fi waaye nag dafa fekk kilifa yi ci bëri yegg seegul woon xam naa dafay daal di delluwaat ba jotaay bi tàmbaliwaat ñu fas yéene ñëw indi li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu ubbiwaat marché central bu Mbàkke bi ñu tuddee tey Cheikh Mouhamed Fadal Mbàkke bu ngeen gisee bërëb bi ni mu yaatoo fii yëpp ay place la woon fii yëpp dafa xatoon tey nag ñu amaat benn espace boo xam ne dafa gën a yaatu ci li nga xam ne moom la nit ñi war a mën a jaar nit ñi war a mën a teg ay place te jàkk na am nañ tamit ne maanaam li nga xam ne moom mooy comme information ñu ne marché bi léegi dootul maanaam fu waay neex rek teg parce que ay cantine moderne laa ñu fi euh, samp cantine moderne yooyu nag ku ci nekk rek fa nga koy samp dañ koy daal di maanaam réglementé ba nga xam ne nii du am pëccëxoo ci li nga xam ne moom mooy am fii ci réouverture marché centrale bu Mbacké ñu duppee ko marché Cheikh Mouhamed Fadel Mbacké mbokk yi ci kanam tuuti daañ ci gën a yaatal ci li nga xam ne moom moo jëm ci Euh, réouverture bi maanaam ubbiwaat bi te ak ci ay discours waaye tam ci ak ay témoignages doon ci ànd ak yéen ci seen site 28 pro mbokk yi ci kanam tuuti lay daal di doon jërë. dayu la mën a daa dayu la mën a daa Cheikh Fallou fii abadin xëy ila man ada tanier bi xam na yaay ko juboog wa ahlu diwaan yeeg seen mbooloo ma xam borom nguur ga gaaw ko def na yaay ko juboog waa ahlu diwaan ya seen mbooloo ma xam nañu la loola borom nguur ga gaaw koo def na yaay ko jubóog waa ahlu diwaan ya seen mbooloo ma xam nañu la bayti wilaayati yaa yor fon na mag ba bu wér bayti wilaayati yaa fon na mag ba bu wér sëriñ ga jiite mbooleem kuñ ñu waliyu la gaal gaal ñii teer gaal gaal ñii teer gaal yi teer ku nekk ba tarda yàqale ku dugg gaalu sëriñ fallu àggale la lakal bal yaa moxtaaru sëriñ Abdoulaye Taba xale kat laa mu yaa man maa yerbal yaa muxtaaroo sëriñ Abdoulaye Tabax Mbakke alayka drabullah yaa man maa sollaa sëriñ Abdoulaye Tabax Mbakke alayka drabullah yaa man maa sollaa